nekk mouvement boo xam ne ci ci mouvement national la ci réew mi yëpp lañu am ay base tey li ñu war rek mooy nekk ay militants yoo xam ne li parti bi tëral noonu lañu war a doxee parti bi leen la tëral wax ko ci comité central mooy ñu animer ñu mobiliser ñu massifier ci loolu lañ taxaw nekk ci gannaaw Ousmane Tanor mi nga xam ne mooy njiitu parti bi di suñu secrétaire général di wax rek ni parti bi jaxasoo na mais ñun mouvement national li ñu soxal li njëkk mooy défendre position parti socialiste muy première position bi ci li mu nekk ci Benno Bokk Yaakaar parce que lu ñu waxtaanee woon la ñun ñoo toog suñu biir d'accord ne dañuy dem ak Benno Bokk Yaakaar d'accord ne du ñu nekk ay alliés ay partenaires la ñuy nekk kon tey bu ñu defee quatre ans de gouvernance tey dañoo war a jàpp ni dañoo war a nekk ci gannaaw gouvernement bi dooleel leen ba li ñu sumb ñu mën koo yeggale ci jàmm ak salaam dañuy nekk ay militantes yoo xam ne ay légalistes la ñuy nekk li parti bi di tëral loolu la ñuy dox di ko waxee parti bi bés bu décidé am candidat bu soobee yàlla dinañ dégg mouvement national fi ñu toll nii li ñu sant moom lañ nekk di def wàcc à la base gën a ñaaxaat militant yi ñu xam ne ci parti bu mag lañ nekk parti boo xam ne warul jaxasoo warul nekk parti pëccëxoo ci loolu lañ nekk di ñaaxaat militants yi ñu xam ne parti socialiste animé ak massifié moo ko war bés bu ñu tolloo ci am candidat dinañ ko teg bu boobaa ku nekk di nga wax sa xalaat. duñ ko seetaan duñ ko nangu ndax dafa nekk njiit boo xam ne euh, bu yàlla rek taxee ñuy wax mat na ndax. bi parti bi daanoo 2000 moo fi nekkoon ak ñu ndaw ci ay responsable 2007 mu am xalaat bu rafet muy organiser ay primaire ci biir parti socialiste defaat ko 2012 kon kooku jàpp naa ni bu ñu jàppee datu élection yi ni mu ko daan defee dina ko defaatee noonu organiser ay primaire permettre mili militant bi gën a sori nekk ci fëngale mi mën a wax xalaatam ñu tànn ki nga xam ne mooy nekk intérêt parti socialiste ñu jiital ko man damaa jàpp ni ñu ngi koy attaqué di ko xas di ko ŋàññ mais nag euh, warul militant bu ñu naan militant bu discipliné discipliné nga nekk biir parti socialiste warul militant bi nga xam ne dañ naan parti socialiste moo ko soxal parti socialiste mooy xeex bay milité ñu ngi ñaaxaat camarades ñu ànd ak dal en tout cas mouvement national socialiste ñu ngi ñaawlu attaques yi ñu koy attaqué dellu di feddali suñu kóolëri ci gannaaw secrétaire général Ousmane Tanor Dieng